ñëwaat ci promesse yi nga xam ne rek maître Sidiki Kaba mu ngi koy yëkkati nag jëmale ko ci defi boo xam ne war na koo relever ci organisation élection présidentielle yu atum 2024 yéenekaay bi di xam ne ne nag kàddu yi nga xam ne moom la maître Sidiki Kaba yëkkati mën nañ cee jàppee ne administration bi jamono ji nag jël na lépp luy ay matukaayam nag ngir doxal nag lépp loo xam ne rek professionnalisme la professeur ay dara Niang nag di secrétaire général bu ministère de l'intérieur ma nga cay yokku ne nag lépp loo xamante ni soxal na élection yi nag daañu taxaw taxawaay gu am solo daal di jëfandikoo nag seen administration yi gën a mag ngir élection yi bokk na ci DGE waa DAF muy police gouverneur préfet wala sous préfet yi ñoom ñëpp nag dinañ taxaw taxawaay bu am solo dugal seen loxo ci organisation élection yi su ko defee nag lépp mën a jaar ci yoon élection présidentielle yooyee nag mbër yi ci bokk ndax buzz la ñuy wut wala nag dañoo am ambition lu mu ci mënti doon yëglekaay bi di l'enquête moom tolluwaayub candidat yi bokk na ci li ko jaaxal yëglekaay bi dellu siwaat caa jàpp nag ne bloc yu bëri yi ñu nemmeeku bokk na ci waa Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi waa Wallu di ay coalition yu yees yu ñu nemmeeku ci langue politique gi tribune yëglekaay ci jamono joojee nag muy dellu soir ci tirage au sort bi nga xam ne rek tey jii lañu ko fas yéenee amal jëm ci wàllu parrainage yi yéenekaay bi dippeekoo test bi gën a mag la ngir jëm ci yile élection Sud Quotidien dellu soir ci taxaw seetlu goo xam ne rek def na ko ci coowal politico judiciaire manifestation meurtrière yi fi amoon ci weeru juin ak liberté civile ak politique rawatina nag lu jëm ci jeu électoral yi loolaa tax nag ba yéenekaay bi di Sud Quotidien di pe atum 2023 atum pëccëxoo goo xam ne rek lu nekk gis nañ ko ci réewum Sénégal bu ñu sukkandikoo ci Jean Charles Biagui di enseignant chercheur ci wàllum science politique foofee ca UCAD ma ngay xam le ni atum ren ji nag Sénégal bokk na ci dëkk yi gën a dellu ginnaaw ci wàllu démocratie fii ci dendu Afrique jamono joojee nag bés bi le jour daal di àddu jëmale nag ci message à la nation bu mujj bi nga xam ne rek moom jiitu mi war na koo amal yéenekaay bi ne nag ne la ñu Sarr ginnaaw ay tàggatoo yoo xam ne rek tàmm na di ko amal fanweeri fan ak benn ci weru décembre yëglekaay bi ne lu ni mel nag Senghor moo ko tàmbali woon nag ci atum 1980 ak léegi mu fekk jamono joojee nag la Soleil yëglekaay dellu siwaat nag ci jéego yi nga xam ne waa saar def nañu ko nag ngir gën a yokk seenub doole ak seenub taxawaay ndax nag lu toll ci benn yu toftal ñaara jóge nañ ca nag dem toll ci benn yu toftal juróom ci ay millions ci wàllum tanu pétrole brut bi at mu nekk yéenekaay bi ne buñ sukkandikoo ci seeni bëgg-bëgg nag bokk na ci jógee ci ñett jàpp juróom wala juróom jàpp juróom ci ay millions at mu nekk ci diggante atum deux mille vingt cinq jàpp deux mille trente cinq l' observateur dellu siwaat nag tey jii ci accident bi nga xam ne amoon na foofee ca Sikilo muy xamle nag ne bilan bi moom yeggoon na ci juróom-ñaar fukki doomi aadama yu ci ñàkk bakkanam jamono ji nag ay nit yu tàqalikook seen sago ñenn ñi di dund ay jafe-jafe moom la rescapé yi di nekkee ay groupe whatsapp yu ñu ci taxawal ak yeneen ak yeneen loolee lépp yëglekaay bi def na ci ab taxaw seetlu ni tey jii les échos nag moom daal di bi nga xam ne rek marine sénégalaise bi daal dina koy teg loxo jëm ci wàllu na mu ne nag atum ren ji toll na ci 690 kilos yoo xam ne nag teg nañu ko loxo ci diggante cartel espagnol ak albanaise réew mi people daal di xëy tey jii nag di ñu xamalek waykat bii di Kia Loum yéenekaay bi di lu soit ci voix bu neex bi mu yor ànd ak guitare moom Kia Loum nag ci jamono ji nag nemmeeku nañ ko ci seen musical bi yër leen yëglekaay bi ak waxtaan am solo wi mu seq ak Anna Thiaw tàggat yaram la ñuy àddu jëmale